bàyyi maa ngi lay waaw maa ngi lay fay kilifa gi ziar la wér. Hmm. tey ñu ñëw fekk ci tiis boo xamante ne dal na ci monde làmb yëpp muy génn àdduna Père Balla Gaye yan témoignage nga ñu ci mën a defal. waa di ko ñaan yàlla suñu borom rek wax dëgg yàlla yàlla son borom teroo kër ma dem dafal ko leer ci barki Seydina Mohamed mi mu gëmoon démb gëm ko tey muy Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam muy sunu papa yoo xamante ni wax dëgg yàlla képp ku yëngu ci làmb rek bu dee benn bis wala ñaari fan sax taxaw naa yow jox la benn conseil bu lay jàllale. kon yàlla na ko yàlla sama boroom jàppale mu tàggat ay champion ba dama nekk roi des arènes kon bu tiis bi dalee si koom du ma wax du ma wax affaire làmb yëpp àdduna gépp la dal suñu kaw wallaahi kon nag fii ñu koy denc di si maam Seydina Issa wallaahi moom mi waxoon ni képp ku ma gisul man Seydina Issa du gis sama ñu war kaa denc fii ci wetam nag kon loolu sant yàlla suñu borom la te ñu bokkoo maag moom lu ñu gëm muy Seydina Limaamu Seydina Issa mais Ablaye comme man kaa denc kàmb ren fii bu ñu ko dugalee rek yàlla na ko maam Seydina Thiès jox sa mu jox ko yàlla mu dugal àjjana nga ñu mën a fàttali ci loo xamante ne gis nga ko mu dundoon ko ci làmb. waaw mais man day ñëw naa stade ba taay mu téye ma dama soo bokk laayeen nga. del doxale nangam del doxale nangam del doxale nangam. ab laayeen nii naa tax tamit li may xam naa ko. waaw ndax ñun waa Kër Sénégal ma boo ko waa Kër bu duggee ci mbir te ni soowandoo gars yi mais nu ko dugal suñu xol surtout maa fo ndax làmba ji am foo kese la dara am fo rek la. dañ ci yëngoonoo gars yi rek mais duñ biir xol nag mais nit ku ne ak jagleel bi la yàlla suñu borom di jox Père Balla Gaye ne yàlla moo ko jagleloon mu nit koo xamante ni Sénégal jox na ko cër mu teewal Sénégal fu ne ko yàlla nag yàlla sama borom tërë mën dem ci barki Sénégal Mohamed